asalaamaaleykum mbokki internet Sénégal set saa su nekk ñuy ànd ak yéen ci mbégte contentement ak fierté waaye saa su nekk ñuy ànd ak yéen ci topp ngeen ñu topp ci émission bu mag bi lee di émission jaljali émission jaljali nag du ma ci wéet benn yoon man la daba ceena ak sama yaay Rama docteur Jeeg ji sama yaay sama mag waaye sama xarit mën naa di bàyyi rek ak sama yaay ma docteur Jeeg ji mu daal di nuyoog mbokki internet Sénégal set yi koy seetaan yaay booy nuyu naa la fay naa la daba ceena ci ci loo ne yaay booy. maa ngi ne sant yàlla bu baax. daa def sa verre bu am. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa gis nga. waa gis nga def sama verre. <laughs> sama verre koskaas. koskaas waaw. daa ciy tojtal sa tuuti blanc la paix. laa def waa koskaas. dégg nga ndax xam nga dañoo jóge waaw waaw moo tax ma def verre. koskaas ba léegi. verre ko verre koskaas ak. waaw daa ciy tojtal tuuti blanc. tojtal ci tuuti blanc. lii nga def sama yaay. waaw noonu laa def waaw. <laughs> nuyu naa la bu baax a baax a baax. maa ngi lay fay jox la sa wàccuwaay waaye yow it gis naa la tarkal la li nga sañse sama couleur na te bëgg naa ko déedéet kay te jonga mën a lool def sa périg bu baax <laughs> waaye waaye waaye sama doom ji tarkaal waaw loolu laf cat nee naa la su ma màggetee damaa bëgg a mel ni yow waaw moo taxit tarkaal la ndax doom moom su màggee day dëbin dëbinu ndayam yaa ngi ci tànk yi maa la ko wax <laughs> yaa ngi ci tànk yi <laughs> nuyu naa leen bu baax nuyu mbokk internetu Sénégal 7 di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay Ramatulaay docteur Jeeg bi seen conseillère matrimonial macha allah mhm. ñëwati nañu ci suñu émission jaljale waaye ci suñu plateau Sénégal 7 émission bi nga xam ne yéen a ko bëggal seen bopp yéen ko taamul seen bopp waaye yéen a émission bu dem ca kaw a kaw a kaw jaraa boot yéen mhm. jaa ngeen macha allah yaay booy jaraa boo jaa ngeen jëf kon ni nga ko waxee mhm. ndax chaque jour ma ne kenn ku la bëgg jar naa daw ba dee rek ngir ñi la safaanu mhm. waaye nag dañuy daal di pétrole rek dugg ci biir waxtaan mhm. ndax amul lu ñuy xaar ku ne xam na ni nag ah, thème bi tey coowul internet la tudd ndax internet baa ngi toj ah, ku ci nekk rek yaa ngi wax ci lu ne waaye nag xam am domaine bi ñu dëgg muy domaine u sëy te loolu di suñu domaine sama yaay dama docteur u jéeg ji toog nii war koo mën a ci ko bu baax a baax a baax ndax nag góor war naa mën a takk benn ñaar ñett ba ñeent mhm. loolu nañ seen diine may waaye jigéen nag moom baaxoo la am boroom kër yu bari benn borom kër rek la baaxoo am mhm. ndax loolu lu ñu seen diine sant waaye nag coow bi daa bari lool lool mhm. ma bàyyi sama yaay mu daal di ñëw rek dugg ci li xamante ni mooy internet bi yàqante bi waxante lu ñaaw li jigéen ñi amatuñu sutura góor ñi mën di dàgg sant ak jigéen ñi moom lu doy waar yoo xamante ni ni euh, warta am ci suñu ndax te nag xale yi màgg ak xale yi nga xamante ni euh, dañoo toll ci xam Euh, ñoom ñëpp rek ci internet bi la ñuy xoole te xale li mu gis moom lay def ba mm-hmm. TikTok amee la dëkk di yéemu mm-hmm. ndaxte loo dugal extrait lu mu ndaw ndaw ndaw rek xale yi dañ ko jël di ko TikTok mel ni ñoom ñoo ko wax toppandoo léegi moom lañ gën a mën ko jàng seen i leçon mm-hmm. eh, yaay booy ma bàyyi la nga daal dugg rek ci li nga xamante ni moom moo di euh, waxtaan wi tey ndeysaan wallaay euh, daba ceen danga am lu dangaa wax léegi lu am solo toppandoo moom la ñu gën a mën naa la ko wax de ku weddi laaj xale yu ndaw yi dugg ci TikTok bi di TikTok maa la ko wax way bu génn challenge bi ñoo koy gën a mën nee moom lañ gën a mokkal jàngale son benn kàddu boo génne mm-hmm. xale yee ko gën a mën maa la ko lépp loo def xale yaa ngi koy tiktok di ci topp di di toppandoo mm. toppandoo moo yàq suñum réew maa moo tax képp koo xamante ne si yaa ngi ci internet bi booy def rek defal lu baax mm. coowal internet lii ci internet ndax li ko ëmb li li mu ëmb dafa bari li mu ëmb dafa bari lool sax mm-hmm. gis nga daba mm-hmm. Sénégal kenn mënatu fee yar sa doom. Mhm. wallaahi kenn mënatu fee yar sa doom kenn mënatu koo jox éducation bu baax. Mhm. ndax li ci internet xuloo xeex ŋàññante yàqante waxante lu ñaaw wàqante mën naa ñàkk. mën naa wax léegi lu am solo. góor toujours dama ko dañ koy wax ci suñu émission. Mhm. góor dañ ne ñeent. jigéen benn. waaw kon góor am bu bu ko mënee. am na possibilité takk ba ñeenti jabar waaye na ko def. dëgg waaye bu mu am coow. Mhm. suñu maam yi dañ daan wujje mhm. ku jéggu metti mhm. ndax li tax ma ne ku jéggu metti du daaw ñu lañsatante daaw ñu xottante daaw ñu yàqante daaw ñu defante ay eh, yu bon. mais ku jéggi li tax muy metti suñu papa yi dañu daan nekk ci tool ya. suñu maam yi ñu dajale leen ci benn kër. mën naa ne sax benn néeg ndax am na nee nañ suñ samay nopp suñuy wayjur dan ñu expliquer loo xamante ni si ñaari jabar bokk benn néeg léegi ñaari jabar duñu bokk kër sax bay bokk nekk déedéet mënuñoo bokk kër sax bay bokk nekk mënatuñu ko yaay booy muy ko jégu metti suñu papa yi daan xëy daan leen jox dépense boo xamante ni si dépense ba sax lu bari mhm. te dinañ ci démerde togg ci añ togg ci reer defar ba mu baax ëmb ko di doxe fii ba daanaka pëti mbaaw ga ma jóge te coow du jib te yanu ko boot seen doom yor ndox mi yor leket gi yanu leket gi di dox fii ba foofa mu metti lool maa la suñuy way jur waaye booba demewul nii suñu way jur yi dañ koo tegoon ci yoon gis nga daba am na loo xamante ne si jigéen ñi am nañ ci part de responsabilité mais góor ñi aussi am nañ ci baax part de mm. ndax bu fekkente ni si yow da ngay takk na jarul nëbb jarta nëbb de jarta nëbb loo xam ne liñ naan kat doxatu gëléem la nañ ma baal ci kaddu gi kaw la jëm xam nga dañoo nekk ci jarta nëbb xam nga dañoo nekk ci actualité waaw ndax euh, Doro Gueye mm-hmm. Clara ak Racky ku mm-hmm. ci nekk waxante bi ñaasante bi defante bi toppante bi kii ay nitam jóg kii ay nitam jóg coow li mel ni ay waa léegi sa yub jàmbur mhm. wax dëgg yàlla lu ca jàmbur moo ci jàmbur uti lan moo ci yooru nit ñi moom la engagé moom ak ay soxnaam ñàkk maandu dafa takk rakk yi ñu ne rakk yi takk suuf waaw waa mu fisal ko ci kaw mhm. ba ba mu fesal ko nit ñi commencé nag di ci wax di ci coow lu nañu di ko def sa sax jur ay nga ne takku suuf bu ko benn jigéen nangu. bu ko kenn nangu. te amaana àdduna bépp loolu la ñu ko jiñoon léegi fesal nañ ko lan moo ciy problème bi. te dégg naa ci kàddu tey jii avant may ñëw dégg naa ko ci sama ci internet ci kàddu yaayam. Mhm. yaay ji daan ne carrément du takk suuf dañ ko takk si. Mhm. ci farata yàlla ak sunna su Muhammad sallallahu alayhi wa xëy na bañoon ko fesal moo taxoon mu ne tekk. ndax nit ñi bu ñu xamee foo jëm sax doo àgg. Mm. kon ni mu defoon sax baax na. xëy na kii fësal na moom bosam fésal na bosam rek moom tamit xolu kujje daal di. koy dugg mu daal di génne ay photom mm. waaye yooyu yëpp sax mënoon naa ñàkk. mënoon kenn ku ci nekk yaa ngi ci sa coin. Mm. yow yaa ngi ci sa ruq kii yaa ngi ci ruqam. boo ayee sa ñaari fan yaa xayti mu laa nag kii ayee ñaari fanam kenn ku ci nekk nag foofu la war a rukkee. xam nga fu ñu war a rukkee fu ñu ko war a defantee. ñaar deux jours yi nga am fexeel sa deux jours yow na neex. Mm-hmm. ba sa jëkkër bu jógee ci yow bu demee ca kële day yàkkamtee ñëwaat ci yow. Mm-hmm. kële tamit rukk ba mu nooy nepp ba bu sa jëkkër ñëwee ci man day yàkkamtee demaat ci moom foofu la yëf yi ne. waaye du ci internet bi du ci coow li du ci wax yaay man li ma gis sax mooy jëkkër ju la togg loowu. waaw yàq loowu la sëy si loowu la. Mm-hmm. jëlu la def la femme au foyer. Mhm. yàlla may na ko wërsëg dénk ko ko tubaarikàlla macha allah. Mhm. mu di ko bokk ak di la jox ci taraangaam. Mhm. am na ku ci xamante ni sax bañ koy takk ñu ngi naan Macky Sall la ko takki woon. ak ci pale ba lañ takke sëy ba. kon yooyu bu ci amee macha allah ñuy ay borom barke. defe naa ne wax ji waru ci woon a jóg. wallaahi ñuy waxit ay doomi baadoola lañ. dañuy wax ba sonn te ñoom ñu ngi ci la leen neex. Mhm. te nee nañ borom doole xamul ndànk. Mhm. kon ñi nga xamante ni ñoo féete woo wax ji mën nañoo noppaliku naan ndox. Mhm. ñoom ñi nga xam ñi ngeeg seen i borom kër. jëkkër bu la takkee teral la. yor la yiir la teg la place teg la fi nga xamante ni nii ci tegukaay bi la. kooku waroo wax waroo defante. bay posta ay photo di ko supprimer. wax ci ba mar Sénégal ñu naan bës ba waxati nañ génn ñu wax jigul bant sax yaay sàkkamtuma laaj. dëgg la. te am na ñoo xamante ni wax defarul la leen dara da leen mhm. yàqal mhm. kon nag am na yoo xamante ni jaru ko ci te yaay ñu bàyyi internet bi ñuy fëseel ay mbir mhm. te man conseil bi ma koy jox moom conseil bi ma koy na sax nag passé na parce que def na ko ba pare booy wéy na mbuus mais man bu fekkonte ni si man xam naa ko teel naa ko lii ay photo mag ay vidéo mag yëpp du ko supprimer duma ko supprimer tey eh, kii jigéen la yow jigéen nga jigéen bu mu dàq benn jigéen. li may wax jóge nga ca kaw lal ba maa la ko wax de. barke alxuraanu karim jonga ma mën ngaa jonga ma lool ba nit du néeg a tibb lu tàng teg ci teg ko ci sa loxo nga ñaaw lool gën a jonge gën a nangul kii nga xamante ni si dafa jonga ma kon jigéen war ta dàq benn moroomu jigéenam te benn jigéen amul ñaari sexe toujours ma wax ko kenn ku ci ne benn sexe nga am te muy dëgg yàpp la macha allah ak karaw nañu ma baal dañuy waxtaan kenn amu ci ñax gazon bu verte bii di sax ñu di ko arrosé kenn amu ko kenn amu ci ñaari sexe kenn amul ñaari turu benn nga am tarkal la lenn dong mooy différence bi kenn ku ci nekk kii da ngay ëppale kii kii ëppale kii kese kese maa waaye kii dugal luñ jëlul ñu jëlul pëy sa jëkkër jëlul pëy dugal ko ci sex bii mu sedd guy mbaa mu dugal ko ca pëy bee mu tàng jër di lakke ñoo yam kon nañu dal nañu réglé nañu jàpp seen borom kër yi te bàyyi uññi sutura gi gi nga lii ci uññi sutura la bokk mhm. jëkkër ji ñëw ndéewanteeg yow ndéewu nopp waxtaan ak yow donte bu doon dafa takkee takk suuf ñëw waxtaan ak yow ne la dama laa bëgg dama laa bëgg a jëlaat nangam nangam. Mhm. bul am na loo xamante ni si jaru ko. àddina jaru ko boo sëyeeg sa jëkkër fukki at ak juróom loo ci def defit la. Mhm. chaque jour ma wax ko daane la day mel ni paanub soow. nga naan soow ma tonni niw ga tonni naan soow ma ba mu des taatu paan ku ñëw day ñedd waaye yow la nga ca naan kenn da ko cay naan. Mhm. kon nañu sant yàlla. naa la ko wax. coowal internet bi bari na. Mhm. te kenn warulu ko ñun jigéen ñi. kese te jëkkër du moroom sang la. Mhm. kilifa yàlla bu ko defee sa boroom kër da ngay xam ni kat kii kilifa la. Mhm. nga wormaal ko suturaal ko. jàppale ko te yàlla tax. waaye lii lu ko fi jar. dara moo ko fi jar daba. ko fi ku ne di wax. ndax euh, ku ne di wax ku ne xam na ni. Euh, ndax dañuy waxtaan rek. Uh-huh. vexewuñu kenn. Euh, waxuñu kenn lu ko naqari. Mhm. waaye ay Aïssatou Diop Fall toog naa naag ndaanaan bu ne invité ko. Mhm. daan def émission yu am solo. Euh, nit ñi dañ daan koppi sax ci moom di def li muy liggéey ndax roy lu baax dara nekk ci. Mhm. du journaliste boo xam ne ñëpp a ko bëgg. kon su toogee tey di live di wax ak ay nit bay wax ay wax yu ñaaw. di wax ay wax yu sawtal man de loolu rafetloo ma ko yaay en tant que jigéen sax rafetloo ma ko mi ngi noonu ndax moom euh, journaliste la mhm. macha allah ñu nawoon ko loolu mu nekkoon fi Walfadjri mhm. toj fi nag def fi lu ne tarkal def fi lu ne ñëpp ràññee ko marqué empreinte am kon bu ko dara jaral yàpp pàlla xam mhm. moom journaliste la yàlla moo ko ko jagleel macha allah autorité bu ne invité na la ci plateau boobu kon am na loo xamante ni si mën naa ñàkk. daan def émission sortie dara jaru ko waaw. Mm-hmm. dara jaru ko ci àddina. Mm-hmm. ma koy ñaan mu bàyyi lépp mu sedd. kam koy sëkkalit mu bàyyi lépp mu sedd parce que àddina amul solo. kenn ku ci ne focusal ci sa liggéey kii na focus ci liggéeyam kii focus ci liggéeyam jaru tëkkoonte jaru waxante yu ñaaw jaru ko àddina jaru ko te ñun ñuy ñuy ay sénégalais. Mm-hmm. waaye mën naa ñàkk. yaay man ay ñëpp doon roy ci ñun. wallaay Aïssatou Diop Fall miy jigéen. ba tey bu ñu demee ba bëgg a yàq suñu. man man jigéen moom laay waxal. waaw ndax bu 14h Masana ñëpp toog di ko xaar muy émission sortie ca Walfadjri. Mhm. yàlla di dogal ba mu nekk ci télé bu mag. wallaahi macha allah nit ñi nawloo ko di ko seetaan di ko bàyyi xel. Mhm. di ko di jël ci moom ay ay ay leçon. Mhm. kon tey su demee. ba visage personnalité ak dignité boobu ñu gis ci moom bu demee tey ba toog di wax yoo xamante nit du koy dégg di am kersa wala nit di ko dégg di jël cër ba nga ko joxoon di ko teggi mën na ñàkk mhm. oustaz Modou Fall daf ñuy bégal mhm. ndax day wax ci yàlla ak yonent bi du ñu xamal suñu diine mhm. du ñu xamal suñu wareef la ñu war a def mu di ñu ko wax lu ñu war a bàyyi mu ko moytuloo moom it ñu naw ko lool bëgg ko lool kon am na yoo xamante ne yaay ñoom suñu nekkee suñuy référence ñu di leen bàyyi xel di leen seetaan mhm. di jël ci ñoom ay leçon kon suñu demee ba ñuy sàmmante ay kàddu ba xale yi tamit nekk ci internet bi di ci commentaire di ci wax yu négatif mhm. loolu dañuy metti mën naa ñaar ndax Sénégal réewu taraanga la mhm. te kon ni ma ko waxee rek lépp lu gis rek lu dul jàmm jàmm ko gën wallaahi te lu rafet rek la nit ñi bëgg kon nag euh, am na yoo xamante ni da koo jarul te lépp rek mooy thème bi ñu jël tey muy coow internet suñu nataalu réew sax lañ nar a yàq nag suñu réew moom lañ bëgg a yàq mhm. te mën naa ñàkk oustaz Modou Fall macha allah dama ko naw xam nga lu tax ma naw yàlla nee na yonent bi nee na rek alayhi salaatu wasalaam mhm. ñu naw ko nag macha allah kenn mësu koo gis mu mu mu wax loo xamante ni si dañ naan tey la mu wax mhm. bu mu ko topp te kii jigéen la na continuer moom it ci li nga xamante ni si mooy ci suñu diine mm. mu ne ca bañ di tontonte bañ di tëkkoonte mm-hmm. ndax dégg naa ko moom moomu ci benn vidéo mu daan ne dama jàpp waaye bu ma ñëwee ñu xam ne lépp dëgg la ma koy ñaan ngir yàlla ak yonent bi jaru ko na bàyyi lépp mu sedd mm-hmm. Aïssatou Diop Fall na bàyyi lépp mu sedd Maam Njaay Savon na bàyyi lépp mu sedd àddina amul solo te jamono bi jeex na ba pare. bis bu yàlla sàkk nag dañuy toog di waxtaan ak yéen. kii di Dora Gueye maa ngi koy ñaanal yàlla. sëyam bi yàlla na ci yàlla def barke. bu dee jabaram jeey dafa dem nag ko naxtaan ba indiwaat ko tegaat ko ci wetam. ndax coow li bari na. Dora sax day coow te dañuy wax rek. coow war naa wàcc ci moom. waaw te nit ñi dañuy wax rek ku coowal kaso nekkoon ci sa ci sa ci sa yaram. booba ba tey ñuy wax mhm. pareeguñu. ay jigéen teg la coow. Mhm. man nag yaay jigéen ña laa teg baaraamu. waaw ndax door a deful dara lam def rek da koo war. mais dama ne la. Mhm. coow laa wax. Mhm. mën na ñàkk wallaay wallaay dëgg la. coow mën naa ñàkk te ñuy wax ñëpp kenn xamul au fond la ca biir. déedéet. ñoom ñoo xam lañ naan bana bonaata xam la ca déeg ba moom may ruur ba ca ban ba ñoom dong ñoom ñoo ko xam kon képp kuy wax na nga xam li ngay wax boo xamul li ngay wax nga noppi gis nga yàlla dafa sàkk gémmiñ xar ko def ci 32 dents. Mhm. ñu naan benn waaye mu tol koy rido rido yi mooy ñaari tuñ. waa loo deful jàkk ne ci nii. te nit sax dana danaan jàkk ba pare noppi loolu mooy loolu mooy personnalité. mais loo xamul xamaanoo ko ba pare nga wëlbatiku. Mhm. bëgg cee wax loo xamante ni si xamoo ko bu ëllëgee kese bi ñu di la vaar. Mhm. mën naa ñàkk. mën naa ñàkk arrêté leen. coowul internet bari na li ñu ciy wax bari na. dañuy dugg dama ni la li mu ëmb bari na Fatou Laobé ngi nii barki Dembo Ndiaye lu ne lañ ko wax. wallaay te mu nekkoon fi nag daan ñu bégal macha allah macha allah tey jii ma nga ca États-Unis di liggéey liggéeyam. Mm. maa ngi koy nuyu baax a baax a baax. Mm-hmm. di liggéey liggéeyam. yow yaa ngi nii macha allah ndaw nga. boo diwoo tubaar fakkaala da ngay jonga ma. Mm-hmm. waa boo demee ba jëm ma. siyaare mm-hmm. ji bayti laay. arrêté lépp. nee waa sa kanam dina am. saa su la yaay nee na ñaawaaya am waaw. ndax boo dee màgget di gën a ñaaw. di gën a ñaaw waaye rafet dalay wor amul ngor moom. booy màgget di ñaaw. booy màgget di ñaaw kon nag. dara jaru fi dara. jaru fi dara nañu wax ju ñaaw ji saagante ndey yi. jëfante ah. yu ñaaw yi waxante yu ñaaw yi lan moo ko fi jar. waaye nag gis nga ñi bàyyiwul suñu di kilifay diine yi réew. dëgg la gaw ñu bàyyi keneen. déedéet kon nag yaay euh, nañ xoolaat suñu bopp. te mhm. defaraat toogaay yi te xoolaat suñuy jikko te roy ci ñu baax ñi. te roy ñi daan def lu baax mais internet bi li ma fi gis royukaay amu fi. déedéet ndax yaay ñëpp yàqu nañ jikko yëpp dafa yàqu. jikko yëpp yàqu na. kenn xamul lii lan la. toujours ñu waxtaane ko jikko yëpp yàqu na. xaw ma ci ndox mi lañ ko def ñu naan ko. xaw ma inde bee ko suus. la daggeer bee ko xaw ma ci lëjum yi yi lañ ko arrosé ñu lekk ko. <laughs> xaw ma ci luñ ko def. waaye jikko yi yàqu na te jikko yi ñaaw na dellu siwaat leen seen xel. Mhm. chaque jour ñu wax ko ni Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar. Mhm. waa Sénégal léegi buñ ko bëggee tak fukki. tojat bopp ak juróom-ñett. waaw kon du sotti. Mhm. kon du sotti. nañu arrêté. nañu arrêté te xirtal suñu bopp ci lu baax xirtal ci suñu njaboot. addinaa mm-hmm. ngi dem de. addunaa ngi dem jamono ngi dem amul solo kon ni ko sama yaay waxee mu mel ni suñu waxtu daf ñoo dab ndax kal euh, tubaarkàlla buñ dee wax li ci coowal internet duñ fi jógee ndax dañuy xaabaabal ndax li ci nekk lépp lépp lépp bari na xanaa sàkk ci rek wax li ñu ci mën a wax li ci des ñu bàyyi ko. ba yeneen yoon ñu daat ci duggaat parce que du jeex ndax lépp nit ñi bu ñuy añ ci internet bi bu ñuy reer ci internet bi bu ñuy ndékki ci internet bi lépp loo xamante ni dañ koy def rek ci internet bi lañ koy defee kon yàlla nañu yàlla sànni sutura dolli ñu sutura ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku julli na nga ñaan sutura si yàlla ndax kat da ngay am sa sutura toog jàpp sa ñaamul xëy ñu uññil la ko ci internet bi te yàlla nañu yàlla may xaalis sutura si internet ndaxte ku ci nekk nag léegi nit ñu amatuñu ngor nit ñi amatuñu diine amatuñu imaam amatuñu islaam lu dul yàq doomi aadama bëgg nañ bës tànk yàqoo doomu aadama ba mu yàqu rek amagoo lu la neex kon yàlla nañ ci yàlla musal te képp ku ko jikkowoo yàlla na la yàlla soppi ci barke yonent bi yaay ma bàyyi la nga naa tàggatoo mbekki ontornag Sénégal fat yi lay seetaan bu jeex amin alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. waa di sant yàlla di julli ci yonent bi mm-hmm. di wax ni lépp loo xamante ni si wax nañ ko fii waa daf daf feene nag mm-hmm. gis li ñu wax lépp daf liñ naan yokk cere rek dool li ñeex faawu ñuy wax yàlla daf ñu fee teg pour ñuy wax kon faawu ñuy wax waaye li ñuy wax képp ku ci gis sa bopp ñoo ngi lay jéggalu bu baax a baax a baax mm. waaye moytu leen chaque jour ma wax ko ni leen tiit jot na tuub jot na mm-hmm. jamono ngi dem te di ngeen ci xam dara jamono ngi dem ndax lii ngeen gis léegi mësoo mm-hmm. leen koo gis di sant yàlla di julli ci yonent bi di sant ñëpp di joxewaat digg daje ba beneen émission ci kàttanu yàlla ak baaxam mm-hmm. incha allah yaay waxee ñu joxewaat Thank you.